ñoo ngi beralaat cant ak ngërëm soppe yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci waxtu wi ci njël gi ak lu mu teel teel def jotaay bi rek mu nekk seen jotaayu wéttal def ko muy seen jotaayu nafar di ci ànd ak ñun ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ndokkeel yal nañu yàlla boole barkeelal suñu dund musal ñu ci liy yàq ak dund te mooy pexem seytaane ak ay ñoñam yàlla ñu ci yàlla musal moom de ku musal rek nga mucc moo tax muslu moom ci borom bi subhaanahu wa lañ koy def yàlla nañu boole musal ndokkeel leen bu baax a baax démb bi ñu yëkkati jotaay bi ñu ngi doon waxtaanee lu jëm ci wàllu fiq nekkoon ci julli ak yi nga xam ne moo ci aju tey jii ñu war a dellu siwaat ci fi ñu tegoon suñ baaraam ci bind ba ko jiitu ndax xam nañ ne suñu diggante mat nay waxtaane lool suñu diggante itam mat nay bàyyi xel lool ndax solo si nga xam ne am na moo tax na kenn ku nekk di bàyyi xel digganteem ak moroomam ci di ko sàmm dafa mel ne daal as gor moom olof yi dañuy faral di wax ne bu jàppee rek jàpp na du jàpp ba mu yàgg mu bàyyi la koy bàyyiloo ak jàppam loola lu rëy rëy la war a doon léeg ñu ne ana sa xaritub daaw ba ana ki nga fi àndaloon daaw nga ne ah ku ne war na koy moytandiku te léeg nag ànd ak nit ren ba déwén wiyaat di ànd jafe na olof sax nee na loolu fu mu amee rek kenn ku nekk am na lu mu muñal moroomam bu ko defee nag loolu rek a taxoon ñu doon waxtaane lu jëm ci àq yooyu dox ci diggante yi ci wàllu dëkkandoo yi àq yi dox ci suñu diggante ci fépp fu mu mën a doon jotaay bi jiitu bi weesu maa ngi doon feeñalal aw nit ñu bari ñoo xam ne léeg ñu yëg ne waxtaan wi ñëw na tey dugg seen kër ndax wax moom loolu rek la ci kër ya la jëm gannaaw nitey wax moom bu wax ji nitee rek dugg ci yittee nit ñi su wax ji weesoo loolu ba jëriñul nit ñi day mel ne wax ja amatul njariñ ndax kuy wax rek aw nit ngay waxal kuy wax rek aw nit ngay waxal léegi nag ki bëgg ku la waar te gisoo ko dañuy wax ne jàngal alxuraanul karim boo ko jàngee rek waaru ki bëgg ku la wax dëgg jàngal alxuraanul karim ku bëgg wéttal moom man na wéttal loolu li muy tegtale mooy foo gis ñu tudd fa nit faral turu kooka def fa saw tur bu dee ku nekkoon ci safaan bi ba alku nga góor góorgóorlu ne man de duma jaar ci safaan bi ba alkande di ma dab bu nekkoon ku nekk ci luy maye ngërëmul borom bi ba am ko def fa saw tur te nga góor góorgóorlu wax ja doon sa yëf nga def loolu muy sa programme te xam ne bu boobaa da nga am ngërëmul borom bi loolu rek mooy njariñul téere bi loolu it mooy njariñu waxtaani diine yépp nag ak bu mu ci man di doon yàlla nañu jag ñun ñëpp bu ñu jagee itam moo ñu yóbbu ci ñu bokk ci ñuy jagal ci pénc mi ndax loolu rek mooy li nga xam ne moo am solo fexe ba bokk ci ñi nga jag waaye fexe ba bokk ci ñi nga xam ne dañuy jagal ci pénc mi yàlla ñu ko yàlla boole defal ci wàllu jamono ji nga xam ne ci lañu nekk mën ngaa wax ne ñoo ngi ci jamonoy campagne électorale waxoon naa ko ca bind bale bañ koy jeexal xew-xew la boo xamante ne dafiy jaar di jàll bii du yoonam mu njëkk mu di fi jaar luy ñëw di dem nag <laughs> waaw luy ñëw di dem nag wër ta soppi saw toogaay wala saw toogin wala mu lay yóbbaale moo tax ba may jeexal ma waxoon ne lislaam moom jàngalewu doon campagne c'est-à-dire amut modèle bu mu lay indi ci ne la naga campagne ngir ñu fal la waaye nag indi na jikko yu baax yu rafet yoo xam ne kum ne ci yow yayoo na ñu jiital la moo tax boo seetloo ca daara ja ak yi ko jiitu cim njàng nit ki dañ ko daan euh, gaaral ne ko jiiteel julli gi mu bañ ne yow koy jiiteel ndax xam responsabilité yi ci nekk moo tax keroog bi fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jógee ñu tànn Seydina Abu Bakrin Saddiq ne ko yaa wuutu yonent bi mu am benn discours bu mu def boo xam ne mën naa yóbbaale donte nag ñoom duñu ay modèle ci suñ penc mi xam naa ku ko wax loxo dem gimiñ waaye ñun suñum penc du yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañu def mu nekk model du am njàngaleem it lañ def mu nekk model loolu yomb naa xam ndax buñ ne dañuy tànn ku ñu war a jiital duñ ne dañuy tànn ki gën a ragal yàlla déedéet duñ ne dañuy tànn ki gën a maandu déedéet waaye yeneen i critères la ñuy jël yoo xam ne buñ ko tuddee ragal yàlla wala ñu tuddee koog maandu wala ñu tuddee kook jubit day mel ne bu ñu indee jub gi yonent bi jàngale boo moytuwul sax ci ko mbubboo ñu tuumaal ko ndax parti yooyu nee nañ uuruñoo walaabul ci réew mi bay bokk ci ñi nga xam ne dañ koy laaj moo tax xaaju nit ñi nga xam ne dañoo gëm ne ak jëm ca kanam day tegu ci li yàlla jàngale akub yonentam ñoom dañuy xam ne ñun dañuy fon dañuy sonn di falaka folli waaye duñ jëm kanam mukk xaaj bi gën a yaatu te gëm ne nag ak jëm ca kanam mën naa am te njiit la doon ku mën a doon ci nit ñi ñoom ñu jàpp ne nii ñuy doxee baax na waaye nag day toll foo xam ne taxawal saxaar gi day jot wala gaal gi ngir jubbanti ko ba ba mu tegu ci yoon wi nga xam ne buñ ca jaaree mu jub ñu door caa mën a jaar jub bu yàggutoo mbaay dafa am nu réew mi bindoo woon bi réew mi bindoo noonu am ñu fi nekkoon yilif ay gox gox bu ne am ko fa nekk ñu koy wooye buurub foofa boo demee ca kajoor am ko fa nekk ñu di ko wooye boo demee ca Saalum am ku fa nekk ñu di ko wooye nga dem ca Bawal am ku fa nekk ñu di ko wooye boo demee ca Fuuta noonu noonu lu mel noonu yàgg na fi ñooña dañ daan falu ci ab juddu waaye itam astan wu ñu yilif nangul leen ko ñu am soldaar am ñu bootu ci seen ginnaaw ñuy doxal daan nañ def sax ñoom ngir fonk kàddu bu ñuy waaj a dem ca xare ba ci guddi ga ñuy def xas maanaam kenn ku ne samp xeejam bi mu war a xeexe ji bu subaa ne bu subaa danaa def nangam danaa def nangam bu subaa day ña fa teew danañ xam ne may góor waaye nag li muy tegtal leen mooy suba du jot mukk mu samp xelam wala mu diit diital wala mu wut luy wane ne day ab absenté ca xeex ba kon ñoom dañoo amoon kàddu kàddu yooyu daa bokk ci yi nga xam ne dañ ko doon donn ñun ba agsi fii ñu agsi nga xamante ne Sénégal moom réewum kàddu la woon réewum nit ku am kàddu ñu dem ba mu yàgg nag ñàkk kàddu tàmbali ñoo dab ñàkk kàddu mooy kii campagne moom lu ne mën na koo digee ñeme naa ñëw ci ab dëkk ne leen danaa leen fi defar ay climatiseur ñeme na ko ba dëkk bi di sedd guyu kuy campagne ñeme naa janoo ndaw ñi ci dëkk bi yépp ne leen su ma faloo ngeen am liggéey te mu wóor ko ne noppiwut ngir loolu am waaye ñeme na ko nga xam ne kàddu campagne moom xaw tuuti kon nga ne kàddu yu du dëgg la yi ci ëpp kàddu campagne kàddu yu du dëgg la xoolee dëkk bi ñu taf photo yi juróom ñi nga xam ne nee nañ ñooy laaj réew mi seeni wata romb la ñu taf ci seeni photo dëkk buñ dem génnee mbooloo mu du jeex di tàccu ñu ne lu tax ñu ne man damay jaayu dafa am benn jànq bu tudd senegaal moom laa bëgg ngeen may ma ko waaw ma denc ko muy sama soxna moo tax may jaayu man nii laa mel nga xam ne day wax ca na jege nit ñi ñuy waxe fekk leen fañ nekk lu mu ruqe-ruqe xool la nga xam ne moom la jàpp ne moom lañ bëgg mu dàkk seenam xel ca loolu di fetal nga xam ne kuy dem ci dëkk ku ne rek dangay xool la waa dëkk ba bëgg lañ manqué nga wax leen ko dafa mel ne bu loolu jotee nag nit ci boppam war naa doon nit wala mu ñàkk doon nit ñu xam ne daa nitoo di ko yooyu rek mooy mën a am suñ borom subxanahu wa taala moo wàccee ni ci kaw suuf ne ko ngir nga defar suuf see tax dama la fee wàccee ngir nga dundal suuf si dundal suuf soosu nag day am programme programme boobu da caa bokk am ku jiitu ñu nose mbir yi jox ko muy doxal mu am ñeneen ñu mu fal ñooñu jiitu am ñu méngoo wàllu àtte am ñu méngoo wàllu yar te mooy jàngale yi ci aju am ñu méngoo wàllu faj am ñu menn méngoo wàllu sécurité yooyu yépp nag mujj ci ay loxoom te léeg na ku ñu fal ku ne war ngaa mën a jub war ngaa mën a jubal boo ko seetloo ndax li tax war ngaa mën a jub war ngaa mën a jubal mooy yi doon tax a war a dëng yépp yi ci ëpp teggal nañ la ko waaw yi la waroon a tax a juba di yi ci ëpp teggal nañ la ko ndax àdduna mooy programme noonu tey kiy liggéey ci banque ba di liggéey ci xaalis léeg am na luñ koy yokkal ca lañ koy fay loo xam ne ab prime lay doon li tax mooy xaalis bi jaar ci loxoom ak li muy liggéey lañ bëgg ne ko jàppal ci lii ndax nga ba ko fi ndax moomoo ko waaw dañoo bëgg daal gannaaw lii moomoo ko ba ko fi moo tax ñoo la yokkal lii ki ñuy tànn muy njiit itam daa mel ni léeg ñun askan wi ñu wàccoog moom ci lépp loo xam ne day tax mu war ñoo mën a foye waaye nag mu jot ci loolu yépp ba noppi nag war ñu nag ñun di ñu foye yékki suñ kaw di ñu dañal def ñu ay xar wala mu def ñu ay nag wala mu def ñu ay bëy nga xam ne jàppiwuñu ay nit luy loolu mbokk yi mooy kuñ tànn ne la yaay njiit dafa am kër gooy dëkkee ci réew mi goo xam ne suñ kër yépp kër la tudd waaye googa moom dañ koy tuddee palais Eh, foofa ñu fexe ba mu gën a ñoŋ ci lépp yi gën a baax yépp nga am ko waaye itam nekk lool ci à ci côté boobu nga xam ne wax dëgg yàlla warlul nañ la loo xam ne kon war ngaa mën a jub benn warlul nañ la loo war a jub moo tax sax ñépp dañu am salaire yu ñu fayeeku yow ñu la da ngaa am kees gu ñuul donte nit ñi wax nañ ci wax yu bari muy kees noir xanaa yëgu ne ku falu ci réew mi am na alal yu baree baree bari ju muy jot joo xam ne moom lañ tuddee kees noire kenn du ko laaj lu tax nga def ci lii wala foo koy def moom moo ca sañe jëfandikoo jëfandikoo ko lu ko neex xanaa kooku wàccoon nañoo moom ñun ba kon nag waruñoo mën a foyeeti ko falu ci réew mi mbokk yi bu tëddee guddi di nelaw am na ñu taxaw ci buntu fa muy nelawee di ko garder te ñooñu ci ñun lañ bokk ñu jëlee ñu suñ biir ñu bokk seeni fetal ne ko yow nelawal ba yàndoor ndax askan wee la fal boo xëyee liggéeyal réew mi ñun ñoo lay wattu buñ sañoon sax weñ du la toŋ ku falu ci réew mi bu génnee bay dem bu jaaree ci tëli bi ñun ñëpp ñu wàcc tëli bi ne ko gaawal demal ndax yow kat soxla si ngay doxi soxla si ñëpp la te ñun kenn ku ne sa soxla bopp lay dox kon gaawal dem te ñëw allahu akbar noonu lañ ko toppe mën naa ko ne toppe mën naa ko ne toppe ba lépp àgg waaye nag bi yooyu yëpp amee léegi kon yitteem dëgg-dëgg nag moo war a doon yii ñu ma lebal jox ma ko mu tegu ci sama loxo man lan laa war a delloo sama askan moo tax léeg-léeg nga gis kuy campagne di ci dépenser ay millions ay milliards sax la ñuy wax léegi ñëw nuyu la ne la damaa bëgg jot ci réew mi nag ma ñaanal ma jot ci daan ne bu xuus mbuusu xaalis jox la waaye xaalis bi mu la jox pour lan la dëgg dëgg nag mbokk yi nag nañ waxtaane lool nag ñu laaj nag nga laaj laaj bi sa bopp nag yow léegi ki ñëw ci dëkk bi ne leen damaa bëgg ngeen fal ma ma waxtaan maa ngi ñëw daal di leen jaajëfal bu baax ci dalal gi ngeen ma dalal su ngeen ma falee ginnaaw amu leen ay yoon danaa leen ko defal su ngeen ma falee ginnaaw amu leen am ndox danaa leen jàppale ba ngeen amum ndox su ngeen ma falee danaa leen jàppale ba seen école yi xale yi di jàng seen hôpital bi nga xam ne baaxut wala amu fi danaa fexe ba mu am fi ñun ñëpp ñu tàcc ko ne ko waaw góore waay yow kat ku yabu fal la ndax ñu am lii mu ne jërëjëf nag falagu leen ma nag waaye jàpp leen ci lii daal di génnee ab som jox ñu waaw loolu mu ñu jox moom fan la ko jële ak ñun lan lañ ko defalagun ba tax mu di ñu ko jox axit ndax ñun fal gi ñu ko war a fal daa amul njëg goo xam ne daa am lu mu war a yëkkati jox ñu te léegi nag banaa banalisé nañ loolu lépp ba ñëpp moom la ñuy xaar ñëpp kilifa gi ubbi di xaar candidat bi ñu ko wax mi ngi lay seet si njabootam a ngi xaar ban enveloppe la koy jox wala lim fi joxe nan la toll ci ne damay jàppale sax mobilité sax gis naa soxna su génn euh, ci internet bi defe naa Touba la ne li ma daj ci mobilisation bi ba ñu tudd kenn ba ñu tudd ka santaanee ko gërëm kenn tudd ma ma ne ëskay mi ngoog loola ñoom ñoo gën a maîtriser loolu ñoo xam sens baag jeexital ya muy def waaye ala kulaalin mbokk yi olof nee na ku xamut yaay kan ku xamut yow looy jar nga war a xam yow ñaata ngay jaayee sa bopp di waxee ne magu magum lëndëm moom ku ko làmb dajoo ko moom mu war a daj boppam waaw kay daj boppam nag mooy nag jot nag ci ak yeewu tànn bu baax ba noppi déglu bu baax jamono ju ne daan na jafe lool ngir ñu déglu candidat yi nga xam ne ñooy laaj réew mi waaye jii moom mën naa bañ a mel noonu ndax juróom dong lañ bariwuñ kon na nga ne sutt xool leen bu baax déglu seeni wax donte neexu ñoo xamee ciy wax moo tax léeg-léeg nga ne lan mooy programme am ma ne ñoom kat neexatu xam ci programme te bu yéegee ba ca kaw mango ga ne la programme bi demewut noonu ndax li nga nekkoon ci suuf a tax waaye ci kaw melut noonu moo tax ma koy misaale ne dañoo ne ci ron mango gi muy réew mi waa ji ne tong leen ma bu ma yéeg su ma yéegee dinaa watt doom yu bari yéen ñëpp ngeen xéewlu ñu ne ko waaw ñu tong ko ba ca kaw nag mu jaaxaan ca banqaas ba di macc naan ñu da ngeen a xamut li ci kaw kaw gi yombewut noonu watt mango demewut noonu ma ne ko waaw baax na moo tax mën ngaa déglu wax yépp waaye xam ci kay wax lam nar lu jafe jafee jafe la waaye nag tànn ci kenn yow àq la ci yow na nga tànn kenn te boo tànnee kenn nit nga doon koo xamee nag ku maanu ngay doon te itam di dox rek ci loo xamante ne day rafetal jëme ci sam penc di rafetal jëme ci sam penc bu ko defee loolu dana la yóbbee teggin yi nga xamante ne nit ki war na koo am ci lépp lu mën di doon ci lépp lu mën di doon ak taxawaay yi nga xam ne moo ci moo ci aju mbokk yi loolu bunt bu xóot la boo xamante xawees naa mën a wax ne ku koy jàngat cim xel saa yoo daaneele rek keneen jël saa yoo daaneele rek keneen jël ndax nit ñi léegi moom euh, jamono toll na foo xam ne booba bañoon a ëppal ci wax ji ne boo demee ca marché ba mën nga ne ban bitig la ñuy jaayee nit ñi wala ban bitig la ñuy jaayee ñuy niroo ko nit ndax am na ñooñ dañoo jàpp ne nit moom mënees na koo dem rek jënd waaw mënees na koo dem rek jënd nga xam ne ku log rek boo moytuwul daal di tàmbulee logg loolu day mel ne du jur du jur li nga xam ne mooy jàmm du jur li nga xam ne mooy ndam man na maa taxawlu ci tomb boobu incha allah danañ ci wéy di ci wéy di ànd ak yéen suñu kàddu mooy rek wax ci suñu xalaat waaye nag ñaan borom bi subhanahu wa taala def lépp mu jeex ci jàmm wate moom defe naa dooru fee am tey bari na ndaw ñoo xam ne élection am na ci réew mi lu jiitu ñuy gane àdduna ba mu fekk leen fi tey te ña ko daan organiser dañ koo teg ci maandu moo tax mu mën leen fee fekk tey wala boog dañ koo teg ci jàmm moo tax ñu mën fee fekk lu ñu xëccoo tey muy am réew kon nag buñ nangu mukk bokk ci ñi nga xam ne dañuy indiw ay wala ñi nga xam ne dañuy indi fitna wala ñi nga xam ne dañuy indi seen yoon nekkul moom daal bindu nga jot nga saw carte déglu ko denc ko it taxaar bu bis baag jàmm nga teel a dem wote ñibbi sa kër jàpp sa njàmbur jàmm na ñooyu defe naa loolu moom dara tënewu ko ci dara tënewu ko ci wàlli yaan bi moom daanaka léeg-léeg sax ak jot la léeg-léeg gis xumbalkati mitin yoo xam ne amuñu ay carte te ñooy xumbal mitin yi nag am koo xam dañ koo joxub añ am koo xam ne joxuñ ko ko waaye boo leen di xool ba mu yàgg yërëm leen boo leen di xool ba mu yàgg yërëm leen yërëm ñiy dajale nit ñi ndax politicien bi dajale mbooloo mi léeg mbooloo mi lay wuy si ñoo si kee bi kii ñëwee ci quartier bi mbooloo mi génnoon dalal ko di ko tàccu ñoo génnaat di tàccu kii bu ko defee nga naan fii mokk naag fii maa ko moom mbooloo moom bu fa conférence amoon ñaare ñoo koy fees dell mbooloo moom bu fa woykat ba demoon di woy boo moytuwul ñoo koy fees dell nga xam ne Euh, benn mbooloo la moo xam ne menn <laughs> mbooloo moo xam ne mooy doxe noonu xaw tuuti kon nga ne ndax campagne bi kon jare woon na ko noonu ndax day mu jàgg wax lu am njariñ day jafe ndax euh, kenn ku nekk rek daa am booy wax loo war a jublu ca wax ja ak koo ca war a jublu liñ ci war a jublu mooy réew mi te itam mooy loo xamante ne day amal njariñ réew mi yàlla nañ bokk ci ñi amal njariñ suñum réew ginnaaw bi ñu noppee woon ci àqi dëkkandoo ak yi nga xam ne moo ci aju tomb buñ ci tegoon te mooy teggi ni nga xam ne nit ki toog ci ab garam place war na koo am maanaam teggi ni jotaay lislaam bàyyiwu ko moom itam jàngale na ko indi nit ci lu baree baree baree bari bokk na ci yooyu ñaar yu ma la ciy indil ci catul jotaay bi tey wéyalal la ko ci jotaay yi nekk suñ kanam mooy ki nga xamante ne namm naa ñëw ci jotaay bëgg a toog la jiitu ca lam war a def mooy na nuyu ña fa toog mbokk yi ab jullit bu ñëwee fekk mbooloo toog balaa def dara na leen nuyu léeg-léeg nit ñëw rek toog daal di tàmbulee wax wala nit ñëw rek toog jàpp njàmburam jotaay boobu nag mën naa doon ab réunion bu boobaa buñ tàmbulee di wax bul ñëw ni lislaam a ko digle tax nga naan asalaamaaleykum daal di perturber ka doon wax wala ab conférence ñëw asalaamaaleykum bay jàll ca rajo ba wala ñëw ca kay wax ne ala mikk da nga ko jox loxo jaar ca kanam caméra ya <laughs> loolu daa siwliite wut sax nag ci yenn côté yi waaye ki ñëw ci biroom wala fi muy liggéeyee walla ci jotaay bi ñëpp toog bu ñëwee na nuyoo na wax asalaamaaleykum nuyu ña nga xamante ne ñoom la fekk ca jotaay ba te it buy toog mu toog fa mbooloo ma yem bul ñëw ci garam place wala nga ñëw ci jotaay bu man di doon di jéggat waaw yow daal ginnaaw yeex ngaa ñëw ba nit ñi toog bu leen jéggat nag jéggat waaw boo toogee ca gannaaw te am dara darajey toog ca kanam ña la war teg ca kanam danañ la indi teg la ca kanam te ña ngay jéggi ngir dem ca kanam duñ mer ndax ñi organiser ñoo koy def te day demee noonu waaye yow boo ñëwee di jégga te kenn xamu la yaa ngi gàddu ay àq te loolu bokkul ci li nga xam ne dafa rafet moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, daan ñu ko moytandikuloo bay wax ne sax bu kenn toog ci diggante ñaari nit lu dul ci seen ndigal waaw koo xam ne dafa ñëw fekk ñaari nit toog toogoon di waxtaan nga ñëw rek ne faax ci seen diggante déedéet xëy na boo taxawee ñu àndoonte nga xam ne kon déranger woo leen boo taxawee ñu tappaloo ñoom ñaar ci benn côté bàyyee la benn côté ba ca des nga xam ne bëgguñu nga toog ci seen diggante waaw lislaam jàngale na bay jàngale sax ab jotaay niñ ciy tooge wala yajlis bayna ni illa bi idnihima loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale wala yaxillu an yu farraxa bayna ni illa bi itnihima daganut ci kenn muy fekk ñaari jullit yu toog mu ñëw teqale seen diggante lu dul ne da koo def ci seen ndigal mm, lu dul ne koo def ci seen ndigal kon teggin yooyu lislaam daa bokk ci li muy jàngale te loolu yépp ci comportement ku nite la bokk loolu la yonente bi alayhi salaatu euh, di ñu jàngalit ci ñuy bañ di toog ki digg aw yoon maanaam baare fi nit ñi war a jaar <laughs> baare fi nit ñi war a jaar léeg-léeg nit gaare fa otoom ñëpp di ko kalaksone waaye léeg-léeg itam nit toog foo xamante ne aw yoon la baaxut waaw suñ borom yonent bi alayhi salaatu nee na kooku lam def sax day indi rëbbum suñ borom subhaanahu wa taala yal nañu yàlla musal ci lépp loo xam ne day indi euh, day indil nit ki rëbbum borom bi subhaanahu wa taala bu ko defee teggin yooyu mbokk yi day sofu ci àqi dëkkandoo yi nga xam ne moom lañ doon jàngale moom lañ doon nafar te itam mu bokk ci yi nga xam ne jullit bi daf ko war a bàyyi xel da ko war a bàyyi xel te ànd ak dal toogaayu mbedd ci fànn googu moo taxoon mag ñi sax daan ko moytandikuloo képp kuy seenu njaboot ndax yu bari yi nga xam ne moo ci nekk yu bari yi nga xam ne moo ci nekk ci ñàkk ko mën a wax ci ñi lay romb te bu yàggee muy ab jëw léeg nga lor nit ci fi mu war a jaar léeg ngay wax wax joo xam ne wax ju amul njariñ la moo tax ki nga xam ne day toog ci buntu kër bu mënta ñàkk wala mu toog ci lu mën di doon rek ci yoon yi lislaam jàngale na ko nee na na wàccee ab gisam waaw bu def loola romb nga gunge ko xool ba mu sori nga ñëw di xool nit ba mu découragé di bëgg a dëpp la nga jaar ci koñ yoo xam ne ni ñu bëggee toogaayu mbedd ëpp na waaw koñ yoo xam ne toogaayu mbedd gis nga boo génnee fële dañ lay gatandu loolooy gatandu di la gatandu di la xool di wax ci yow ba nga agsi ñu wàññi seen kàddu nga wonewaat ginnaaw ñu continuer di la gunge nga xam ne gàttandu gunge lay doon gàttandu gunge baaxut gàttandu gunge baaxut ku mat du def noonu waaw day fexe ba du lor jullit yi nga xam ne ñooy romb léeg-léeg jigéen lay doon xale bu jigéen wala jeeg buy sëy ci koñ bi génn jeeg ja toog ne ca moom waaw moom de moom man de xawma lu muy wut heure bi tàkkusaan rek lay génn kenn ah moo génn tàkkusaan dong ne ca nag ne ca ne ca ya ca nekk yépp kenn mënu koo wax waaw kenn mënu ko wax kenn ma noppi sax man damay bañ a bàkkaaru gis nga bi ñu tàmbalee jëw am na koo xam ne nee na du jëwee day bañ a bàkkaaru te la muy a gën a garaw ndax bi ñu waxee danaan ah ma noppi sax lépp de ku ko wax damay bañ a bàkkaaru man ma noppi waa léegi loo ci doon waxee loolu di indi soupçon yooyu te boo moytul ku la cuq rek nga bëgg waaw ku la cuq ne la ah moom lan ba nga tàmbali léeg nga def ko imaam ji génn léeg nga def ko kilifa gi génn moom daal mucc moom jafe na lool te nag ab jullit dëgg mooy koo xam ne jullit yi dañu mucc ci aw làmmiñam dañuy mucc ci ay loxoom al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ki bokk ci jullit ñi te mooy ki nga xamante ne mooy ab jullit dëgg mooy koo xam ne nit ñi mucc nañ ci làmmiñam mucc nañ ci ab loxoom yàlla na nit ñi mucc ci suñu làmmiñ mucc ci suñu loxo mucc ci ay loxo nag moo gën a yomb mucc ci làmmiñ waaw ndax loxo moom xëy na boo mu doole doo dóor kenn mën ngaa bañ a bindal nit lu ko yàq góor góorlu ci loolu waaye sa làmmiñu moom fexe ba musal ci nit ñi léeg mu jafe lool yàlla ñu yàlla defal ñu man ci musal nit ñi waaye itam yàlla nañ mucc ci làmmiñu nit ñi ak loxo loxoy nit ñi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax te di leen ndokkeel di bég lool ci ni ngeen di ànd ak ñun jotaay bi di jaajëfal suñu jigéen ñi nga xamante ne ñooy ànd ak ñun jotaay bi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 seen mbokk si la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu